appréciation bi mooy lii moom hmm. boo ko mënul dox c'est la qualité li muy yenn ci kaw fii lañ koy nattee buñ ko nattee ba noppi loolu lañ lay jox doo ci soppi virgule donc képp ku am entreprise tey tey entreprise duñ am am crédit bu ko defaree nii lay mel def mënut a def ba def lu weesu kon entreprise bi am na crédit sëkk lii jaaxal ñu moom mu mu mu ñu calculé ko defal ko lépp mu taxaw nag léegi liggéey